yamma saba yo bal kawmire sam nga lii nii ma xam hmm? lii fu mu jógee ma kurus bi rek moo nekkoon fii nii ak kaal bi waaw bi ne waaw waaw daan si ñëw léegi incha allahu rabbi moo gën ko leeral mooy si si wàllu dinaa la woon lii tamit baraade la baraade moo fi nekk dara nekku si lii dara nekku si baraade bii te surtout dama yaakaar ne ay magum jéem bu ñu demee boo toog si ay émission ay télé dañu war a wax ne li nga xam ne luy jëlee ñu doomi aadama yi mm. li nga xam ne euh, yaakaar naa li tax ma ñëw fii waaw xam nga bannière bari na ay façon te wute mm-hmm. waaw ñun suñu bannière bari na li nga xam ne tànk ganaar tank mm-hmm. tànk ganaar lañ koy jële xam nga ganaar moom tànkam day def nii waaw fii la dañ dañ koy kole fii nii indi sa musuwaar ñu xool vérifier yëpp ba pare li ngay wax ba pare dugal ne génn xaalis nga yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen site bi di Sunugal 24 di am mbégte lool ak bànneex dellu siwaat euh, ci kër Mbayang ci rubrique ñaw xalima di déwénati waat ñëpp rek di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak yàlla mi nga xamante ni mooy borom jéggal yàlla nañu yàlla boole jéggal ñu teewe ko at yu bari te rafetu fekkin yàlla bu mu doon suñu mujjantalu koor tey nag ma dem ci sama ñi nga xamante ni koor munuñ ci dara muy sama mbokki pël yi la macha allah koor moom ak ñoom rek tey duma ci détaillé parce que xam naa ni kon ci laay des ndax ki ma toogal moom làmmiñam damul ci poosam waaye nag euh, bu ngeen ko xoolee rek di ngeen ko xàmmee joni joni lañ koy wax defoon nañ fi émission temps yële macha allah Thierno Amadou joni joni dinañ ci dugg waxtaan ak moom lu waral joni joni gi gépp waaye laataa may sori dama koy bàyyi rek mu nuyoo mbokki internet yi nga xamante ni ñoo toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan Thierno maa ngi lay nuyu la ziar. waaw soxna Mbayang maa ngi lay fay bu baax maa ngi leen di sant maa di gërëm ñu ngi si dugg si bisimilah rahmaani rahiim ñu génn si alhamdulilah rabbil alamin mm. surtout nag euh, seen site bi Sénégal 24 euh, euh, maa leen sant maa gërëm. képp ku ne turam ak santam. Mm-hmm. Mm-hmm. Thierno Hamidou Joni Joni lu waral Joni Joni gi. waaw bisimilah Joni Joni bi lu gën a bare ñu koy dakkantelal presque sama liggéey lay doon. Euh, ñëpp ñi nga xam ne maa ngi jëflante ñoom yàlla def na ne euh, foo munti nekk si àdduna boo ma joxe sa dar incha allah rabbi lu ma la munti liggéey lépp euh, incha allah di nga ko jot te aussi boo ko jotee incha allah li nga li nekkoon sa yett dink nga si moom incha allah rabbi mhm. loolu moo tax ñu koy dàkkantel jooñ jooñ comme ni pël daan liggéey bu njëkk ba. Mhm. nga nekkoon Daara Jolof jamono yi euh, nga daan ñëw dakaar di indi ay bagage ak yooyu. Mhm. waaye dafa mel ni nit ñi bàyyiwuñ la ci bi ñu jàllee émission ak léegi. Mhm. Euh, ba wax nañ la ne la pour nga ñëw fii nga xamante ni moom mooy dakaar loolu am na wala déet. waaw dégg la xam nga man euh, man moom euh, fii diggante ak Daara Jolof rek ak Dakar laa nekk. ñu mm-hmm. gën a bari bu ñu ma woowee te te jotee moom. Mm-hmm. jotee ñu ma dañuy xam ne man maa ngi si Jolof bi. Mm-hmm. Euh, surtout nag bu ñu bayee vocal ba mu duggee si réseau rek damay jot seen vocal ma mun koo liir après mu leen woo téléphone. képp ku nga xam ne nag soxal na maa ngi fii nii Dakar mun nañu gisante fii wala ñu jëflante. bu fekkee maa ngi Jolof ba mu wootee mu jot ma ba paree ba tey mun nañu jëflante fu mu munti nekk si àdduna mu jot liggéeyam incha allah. incha allah nga maa ngi fii West Foire wetu marché Serigne Fallou wetu marché Serigne Fallou kon léegi su ma la déggee waa Dakar mën nañ jot ci yow facilement mhm. parce que tàmbali nga fi bari tànk mhm. d'accord donc mu ngi noonu Thierno Hamidou Dioni Dioni moom lañu àndal euh, ci fi nga xamante ni mooy seen émission euh, ñu ubbee ko nag wàllu seet mhm. euh, seet nekk mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la pël itam maîtriser ko lool lool yow lan ngay seetee Thierno Hamidou waaw soxna Mbayang seet de moom dafa mel ni moom loolu dañ ko nàmp Euh, suñu deret la nekk mhm. euh, seet moom depuis bu ñu ay mayee set ans huit lañ koy foowee bu mhm. ñu màggaale ko mhm. surtout nag si seet suuf bi boobu moom euh, yàlla def ne même jigéen yi mun nañ ko même xale yu jigéen yi nga xam ne majeur wuñ mun nañ ko waxtuma la nag ay magum jëm yu toll na si man moom ñu dem boo ay dem si yeneen réew gis ay xam-xam. day hmm. fekk loolu mooy jiit bi daal loolu mooy lépp daal incha allah. mooy bi ñuy wax ramlu mooy tomb bi. waaw mooy ramlu mooy bi incha oh. allah rek bi lépp dañ ko seete. d' accord hmm. donc seet daal nekkul loo xamante ni jar nañu ciy dugg di ci gën a. déedéet bu baax a baax. Hmm, mais euh, itam gis naa bi ñu fi jaaree ak léegi gis naa euh, demande yu bari nit ñi laaj la ko ci lu jëm ci wàllu nopp. nopp moom nekk mbir moo xamante ni tabarkalla macha allah moom ku wax nopp ku wax fas rek da koy jël bàyyi ko ak moom. dëgg la euh, waaw noob bi moom lan lan lay doon. waaw noob euh, soxna Mbayaan bare na ay façon noob moom dafa fekke ne ñun si ñul na fekkee baax. Mm-hmm. si jigéen bi ak si góor ki incha allah rabbi noob dañ koy defar ay façon yu bari. Mm-hmm. te wute. Mm-hmm. am na façon yi nga xam ne da ngay jàpp euh, xam mooy bu fekkee jigéen ngay noob. Mm. turam rek ngay def. am na fas yi nga xam ne danga koy def danga koy def suñu digg am na beneen bi nga xam ne sa suuf la nga koy def mm-hmm. am na bi nga xam ne nag boobu sa sunguf danga koy utiliser Euh, mënuma ko wax fii nii si jàkkaarloo teel presque mm. dafa xaw a nu bari tuuti nan koy suulee moo garaaw waaw moo garaaw ah, léegi nag loolu buñ ko jëfandikoo ba pare comme ni ñu waxee uh-huh. incha allah bu fekkee jigéen bi moo def noonu wala góor ki moo def noonu incha allah day gis résultat bu gën a gaaw incha allah bu gën a gaaw mm-hmm. baax na incha allah mu ngi noonu niñ leen ko waxee Ouest Foire dëkk Thierno Hamidou Dioni Dioni mu ngi euh, nekk bori euh, marché Mame Diarra ku ko woo téléphone yi rek di 290 78 08 77 290 78 08 wala nga woo ko ci 78 347 83 21 incha allahu taala di nga ko jot ba tey itam ci lu jëm ci wàllu ñag man gis naa euh, euh, pël juróom fu mu dem lu mu guddi guddi day wàññeeku waat dellu si waat ci biir kër gi mm-hmm. am xeetu kaaraange yoo xamante ni mm-hmm. gannaaw bu ngeen defee nopp gi ba pare mm-hmm. da ngeen def danañ ko def maanaam wàllu kaaraange ak wàllu samp nit mm-hmm. loolu nekk seen for mm-hmm. ndax Thierno Hamidou alxuraan la koy jëfandikoo wala ndax sunguf ak reen lay jël waaw Thierno Hamidou li gën a fës ci moom mooy wàllu sunguf ak ah, reen ak fas fas waaw presque loolu laa fekk sama maam ak lépp ñu ngi koy liggéeyee man tamit moom laa continuer mhm. te li nga xam ne li gën a gaaw euh, def léegi gis léegi si mhm. moom laa gën a aaye te aussi te aussi moom laa gën a gëstu aussi mhm. waaw yàlla def na si loolu wàllu samp moom incha allah rabbi am nañu secret yu bari te secret yooyu dañ koy jëlee li nga xam ne mooy si wàllu nag ak si euh, gëléem ak xar am na yi nga xam ne buñ ko defee incha allahu rabbi yaakaar naa si jur yi nga xam ne mooy delluwaat si kër. Mm. amul li gën a xawee gëlëm. de te aussi gëlëm boo xoolee li nekk ci kawam mënoo ko daan li suuf boo affaire boobu laal si suuf. Mm. Ah, buñ ko sampee si doomi aadama bi nag fu mu munti nekk si àdduna moom kenn mënoo ko daaneel si suuf. bu fekkee luñ ko wax moom jaar na ko si yoon. mu am mm-hmm. ko incha allah rabbi. Mm-hmm. day dem ci kaw rek allah. Mm-hmm. nit ki nga xamante ni day def nit lu bon mm-hmm. kooku moom boo yegsee ba ci loxoom mu leer ko ne diw mi moo la def lu bon bu soobee yàlla diw moom du nekk ci jàmm lu waral lool waaw am na secret yi nga xam ne boo ko defee incha allah bu fekkee euh, nit ku def la lu bon mm. avant loolu nga jiitu ko nga def ko sa yaram incha allah loolu ñetti fan nga koy sangu mm. boo ko sangee am na avant nga koy sangu dinaa la jox ay tegtal boo ko defee si biir ndox bi da nga gis tegtal yi ma la wax bu fekkee góor wala jigéen la bu fekkee ku ñuul wala ku xees la mm. da nga koy xam daañ si ñëw si loolu Mm. incha allah si kanam mm. loolu lu kum munti doon si àdduna ku la def lu bon dañ koy xam mm. te aussi boo ko defee incha allah lépp day waat ñëwaat si moom incha allah mm-hmm. mm-hmm. donc euh, mu yor xam-xam bu doy waar bu yéeme boo xamante ni tabarkàlla macha allah démb moom lañ daan jëfandikoo lu ci mel ni fas lu ci mel ni sunguf lu ci mel ni reen ñu mën cee def lépp nag sa diggante yaat nit ki kaaraange ci wàllu boppam ubbeeku ci wàllu boppam samp nit ki itam yooyu yëpp daf koy def tabarkalla macha allah loolu moo tax sax bi ñu fiy def émission daara jolof la xoon ne ku ko soxla nga fekk ko fa waaye nag ñun def nañ suñu kéemtalaay kattan ak mbokk yi nga xamante ne ay client lañ te jëflante ak moom ba indi ko fii ci Dakar nga xam ne daf fiy bari tànk ku ne mën caa jot ndax de yegg daara jolof moom yombul waaye ba tey itam bayre da ngeen ko am pël pël dafa yor bayre daanaka yéen bu ngeen rombee bu ngeen waxee sax ñu ne déggal bi dëgg la waaw xam nga bañeere bari na ay façon te wute mhm. waaw ñun suñu bañeere bari na li nga xam ne tànk ganaar mhm. tànk ganaar lañ koy jële xam nga ganaar moom tànkam day def nii waaw eh, te aussi bu defee nii rek dina am foofu dara lu mu lekk mhm. te aussi yooyu buñ ko jëlee ba pare dañ koy boole garab yi nga xam ne ay namar lañ koy wax ah, boo xoolee dubux boo koy jiw benn pepp boo ko dugalee si biir suuf bi dina jiw ay lu mat fukki dubux wala ñaar fukk loolu tamit dañ koy boole si yooyu secret boobu mm. ak tànk yi nga koy sangu mm. incha allah foo munti dugg si àdduna moom dina di am loo delluwaat si kër gi danga am loo loo tamit loo den ci wàllu alal ci wàllu am am lépp incha allah te yooyu yëpp xeetu xam-xam la donc numéro yaa ngi noonu jël leen ko ci euh, suuf écran bi su ko defee rek euh, ngeen ko mën koo woo mu ngi fii ci weesu foir ci boori marché Mame Diarra la sama pël bi gars yi dañuy faral di wax sama pël baa ngi ci ruq bi moom nag mi ngi nii maa leen ko indil euh, seen jafe-jafe jeex tàkk waaye Thierno dafa am ñaari laaj yoo xam ne dama la ko bëgg a laaj waaye nag bala ma cee sori dama gis tey ji sama kër nga ñëw indaale fi cin ak baraada mm-hmm. ci koor gi mm-hmm. wala a attaaya ci ngoon gi waaw léegi loolu lépp incha allah daan si mooy si wallu cin bi. waaw euh, lii bari na ay façon yi nga xam ne euh, dañ si def ay ay bagages. cin waaw bagages yi nga xam ne te aussi yaakaar na ñëpp war nañu xam ne bagages yooyu dafa am nu mu demee gis ngeen cin bi moom dara nekku si. lenn nekku si. dëgg te aussi. ma xool kubéer gi. bi tamit dara nekku si. parce que voilà léegi. dafa am yi nga xam ne nag dañu bëgg wane affaire yooyu xoolal xam nga lii ni moom dara nekku si lii xaalal ah waaw voilà léegi dafa am li ma xam ne dama ko bëgg wane fii rek pour nit yi gis nga li kurus bi moo fi ne waaw bismillahi taala muhammad wa ala muhammad abdul jinni musa jinna salama sakti da jiri masaba ya balkam ya samaruti taala muhammad wa ala muhammad abdul jinni musa jinna salama sakti ya da da jiri masaba ya balkam ya samaruti nga lii nii lan moo hmm? fi mu jógee ma kurus bi rek moo nekkoon fii nii ak kaal bi. waaw li moo si ne. waaw waaw si ñëw léegi incha allahu rabbi moo gën ko leeral mooy si si yii nii. bu ma wuufal xaalis bi ma xamul fu mu jógee kat. waaw dinaa la woon lii nii tamit. waaw baraade la. baraade moo fi nekk dara nekku si. lii dara nekku si. baraadi bii nii te surtout dama yaakaar ne ay magum jëmm bu ñu demee bo toog si ay émission ay télé dañu war a wax ni li nga xam ne luy jëlee ñu doomi aadama yi mm-hmm. li nga xam ne euh, yaakaar naa li tax ma ñëw fii pour defal nit ki dara pour mu mën ko gis muy wàllu sunguf mm-hmm. ak reen ak fas mm-hmm. wala wàllu bënd loolu moo gën a mun convaincre doomi aadama ki mais li nga xam ne ay wàllu karamatul ay ni lii yaakaar naa dañu war a dépasser si ni pour bëgg am nit ki wala bëgg convaincre nit ki mm. maa ngi seetaan fan yi gars yi ñu koy jarale si biir émission yi nga def fii nii sa ndox nga teg baraade bi ci kaw gaz nga teg kubéer bi nii après nga bay trente minutes nga xelli baraade bi mu nekkaat à sow sow waaw fekk ndox nga defoon toujours nag mu bay xel nit yi nga xam ne ñoo toog foofu wala ñuy seetaan mm. loolu amut dara amu si baraade bi bu wonee baraade bi nii nii na wone kubéer bi nii si biir waaw li nga xam ne mooy nekkaat soow waaw mooy nekkaat soow moo nekk fii nii si kubéer bii lay ne hmm. dara amu fa loolu ko tàngaay yi ci biir ndox voilà loolu muy convaincre doomi aadama bi li nga xam ne nag mooy mooy lii nii hmm. li nga xam ne dañ koy wone génne ay gàllaaj fii nii fekk ay ndox kes moo fa nekkoon ñu tekk ci kaw uh, gaz ñu wone fi ay gàllaaj ay fas ak béjjën nekkul woon fii nii si kubéer bi fii la nekk bu tàngee rek dañ koy wàcceel léegi ñi nga xam ne ay def nañ si qualifié yooyu ñoom dañu yëkkati kubéer bi rek fekk affaire bi mu ngi si ñu wol leen ko ñi nga xam ne mu su buñu qualifié si matériel boobu dañuy jël kubéer cin bi sànni ko si biir paan affaire bi daanu si biir fekk loolu nag yow dafoo si qualifié si affaire yooyu dafa civilisé wut te aussi geste yi nii li nga xam ne mënul convaincre doomi aadama li nga xam ne mooy tax ñu toog si télé bi wax li nga xam ne mooy jëriñ doomi aadama yi pour wàllu xam xam mooy. mais mais mais leeral bi yow lan moo la ci dugal. waaw lan moo ma si duggal ñi nga xam ne dañuy yaakaar ne lii de réalité la fekke du réalité lii ni xaalis bi ma la woon sànq. waaw boobu yàgg na. élève bu mag moo toogoon si tere muy wone ma ne yow da yor jénne waaw ma ne dinaa indi fi xaalis bi nga xam ne jénne moo koy indi sama kër waaw ah? mu wone affaire bii nii def ba pare xaalis bi nekkul foofu xaalis bi fii lañ koy def xaalis bi fii lañ koy def ah. préparation avant muy ñëw la kon xaalis bii nii. waaw fii la dañ koo collé woon foofu dañ koy collé fii nii sa musuwaar teg ñu xool vérifier yëpp ba pare jat li ngay wax ba pare dugal fii nii génn xaalis yi. nga li ñuy dara amu si xaalis waaw dara amu si loolu lépp ay wax lekk wax yi nga xam ne euh, day yàq xel doomi aadama yi. Euh, damay yaakaar ne man de defoon naa ne tey jii dañ may defaral xaalis ba ci li xaalis ba mu fees. waaw yoo booba. Euh, yëf nii la demee te liñ ci jublu mooy ñi nga xamante ni ñoo toog di seetaan te yaakaar ni lii dëgg la. waaw ñuy joxe seen xaalis. waaw nag ci ñaar fukki junni wala ñeent fukk. Mhm. pour ñu defal leen ko téeméeri junni. Mhm. nga leeral leen ne loolu amul. li nga xam ne mu tax mu ma def ko. surtout xam nga man olof bi leerul bu baax. waaw man bu pe jëlee décision pour dem si tere toog. du mhm. wax li nga xam ne day jëriñ doomi aadama yi. day fekk ñaar lay doon. ci wàllu fas ak sunguf wala bënd. ma gis si dara. Mm. mais am na li nga xam ne comme yii nii pour nga convaincre ay doomi aadama nga xam ne yaa ngi toog te yow kii nii lu may def yow xam nga depuis yaa ngi nekk xale mm. doo ko nangu te aussi surtout nit yi dañuy yàqu tey der der der yi xam ne ñaankat yi mm. te ma wax la ñaari mbir ñoo ñuy toog di wax am nañu jënn gis nañ jën jënn kenn du ko gisee noonu kenn du ko gisee noonu mm-hmm. kuy njaaloo kuy fen du gisee noonu jënn jënn ku set mooy gis gis Mhm. te pi amoo 40 ans suñu genre yi foo mu di toog nga ne gis nga jënn jënn kenn du gisee noonu. déedéet waaw nañu moytu yooyu daal incha allah rabbi. am na solo gis ngeen ko mu ngi noonu Thierno di Dioni Dioni indi na ci ay leeral liggéeyam nag moom wax na leen ko neena na bind la fas la sunguf la reen la noob samp kaaraange bayre ubbeeku surtout nag noob moom <laughs> eh, saay-saay daal baaxul te man dama ci am benn bu ma ci xam pël moom yàlla na dee rek. maa ko wax pël yi may seetaan yëpp ndax samay gàmmu lañu euh, ñun ay tëgg lañu te macha allah nekkin bi rafet na donc 77 290 78 08 wala 78 347 83 21 moom mooy numéro am mi ngi fii ci Ouest Foire boori marché mam jaara gaaw leen ngeen jokkoo ak moom bala moo duggaat Daara Jolof ndax foofu moom bu fa duggee fa bagage ya nekk. indiwaat ko fii day daal di jafe lool kon fexe leen ngeen gaaw waaye ba tey Thierno am na ay bant yo xamante ni mi ngi fi euh, ci kaw table ji mm-hmm. euh, bant yi nekk bant yu yéeme bant yi moom pour la waaw bant yi bari na ay ay liggéey yi nga xam ne liggéey moo si nekk mm. te aussi liggéey bi nga xam ne euh, surtout ñi xam ne sama mbokk ñi nga xam ne dañu nekk extérieur mm. bant yii nii mm. yaakaar naa bant yu ñuul la yii yu ñuul la yii mooy nit yi nga xam ne nit yu ñuul yi mooy maanaam wàll wax comme africain africain waaw yii ni mooy yu weex yi pour nit waaw mooy tubaab wala naar mhm. te ba tey mun nañ ko jàppee ba tey ñii góor ñii mhm. jigéen mhm. si wàllu ñun ñuy liggéey lii nag dafa am façon yu si ne façon bu ñu liggéeyee jëflante ba pare wàllu am-am su am-am ba nga xam ne wàllu sampal pour nga xawee lii foo munti nekk waaw dem la koy yóbbantel bant yi ni yi juróom-ñaar la yi juróom-ñaar boo koy sangu da nga koy def si biir ndox bi boo ko sànnee si ndox bi dina am ñu dem ba si suuf. Mhm. wala am ñi nga xam ne demuñu. dañuy nekk ci kaw waaw nekk ci kaw ñoom ñëpp wala ñoom ñëpp dem ba si suuf. wala am ñi nga xam ne dañu taxaw nii si biir ndox bi. waaw xam nga li ma wax bu baax. xam naa li nga wax kon dèjà façon yooyu wax moo fa ne. Mhm. fekk yow mi nekk États-Unis wala France. Mhm. yónni naa la bant yi nii. bant yi boo ko dugalee si biir siwo ndox bi bant yi wane nañu dañu dem ba suuf wala demuñu. wala dañu taxaw. foofu wax moo fa ne. wax boobu nag boo mu woote téléphone dina tetal nooy def ak li nga war a am ak looy def si biir mhm. dafa ànd ak sunguf mhm. waaw surtout nag daanaka bant yi li saxaar lay doon waaw bant yi dafa am lu mu lay wax waaw dafa am lu mu lay wax yow mii mhm. sànq wax naa la bu fekkee góor wala jigéen moo la def lu bon di nga xam dëgg la xam nga wax naa la ko sànq wax nga ko sànq voilà si biir yooyu nag foofu ngay xamee bant yi góor ban jigéen la bii da nga koy jàppe jigéen mhm. benn côté bii da koy jàppe góor benn côté bu fekkee jigéen moo la def lu bon wala góor danga ko xam bu fekkee mun nga gàllankoor taf-taf moom foofu nga génne bant bi def am luy wax nga taal gaz nga teg ci ko wam mu lakk képp ku nga xam ne yéene la la lu bon wala def na lu bon mhm. day dëppwaat si moom kenn mënu si lenn ba bant yi mot ba càngat bi mot nga jël bant yi nag def am foo koy defee nga suul ko mun nga delluwaat sa kër ba pare nga garder ko loolu mooy si am dara incha allah secret yu doy waar la. Mhm. secret pël la te macha allah ku leen xam xam ne daray caaxaan euh, amuñu ko te nag euh, danañ ko yombalal nit ñi noonu lañ daan doxalee donc numéro yaa ngi noonu mën ngeen ko jël euh, xob bi moom xob bi sa dënn bi. waxoon nañ ci keroog. Mhm. nangu woo mu génn. waaw xob bi xam nga xob bi bari na ay secret yi nga xam ne. gis naa ko ci état. waaw xob bi bari na ay secret yi nga xam ne ma wax ci ki ma ko gis. waaw naa ñu bàyyi noonu rek naa ñu bàyyi xam nga man ah, yenn saa sa copain bi nga ko jox eh, ah, naa ñu bàyyi noonu rek soxna Mbayang wax baaxul daal parce am na lu tax ah, jaar naa si ñu bari mooy ñi gaa yi nekk si état yi te aussi secteur bu bari moo si ne mm-hmm. secteur bi nga xam ne luy ëmb ci kaw suuf mm. bari na ñi nga xam ne ay mbóot ñu ngi si biir mm. waaw boo ko gardé nga mën a respecté nañu la ko waxee incha allah lépp li nga xam ne day jëriñ doomi aadama mhm. dina jaar sa loxo incha allahu rabbi incha allah waaw kay euh, mu ngi noonu numéro yaa ngi noonu ci suuf écran bi ngeen mën ko jël su ko defee rek ngeen jokkoo ak moom ni ma leen ko waxee ëpp na mu nag mu rëcc leen nag ndax sama gàmmu la te tabaarkalla maa ngi xaw a bëgg a yàgg ak moom euh, caasu golo waaw moom bu ko tuddee sax da xaw a am benn aar waaw caasu golo bi loolu pour jooñ jooñi la def léegi gis léegi loolu waral ñu tuddee la jooñ waaw loolu mooy waral mooy jooñ jooñ def léegi gis léegi loolu si caasu golo lañ koy def. mais caasu golo gis naa ni ci ngay fas jigéen ñi wala di ci fas góor ñi. waaw façon bone am na secret bu nekk si biir mais mu wallu jooñ jooñ la bu ñu ko defee si caasu golo moom léegi léegi dañ koy gis incha allah. ba fase. waaw léegi léegi lii. Mhm. même bu dee sa diggante ak sa patron. lu doon si àdduna daal caasu golo jooñ jooñ laa koy wax. golo dafa am lu mu bokk si doone aadama yomb na am. waaw yomb am yomb na am caasu golo yomb na am. Mhm. Mhm. affaire bu doy waar eh, woo leen ko ni ma leen ko waxee rek eh, ci 77 290 78 08 wala 78 347 83 21 xam naa ne émission bi jeex na tàkk ndax temps bi li ñu cërale woon jeex na sa digganteeg Macky Sall moom. Hmm. sa waay la de. waaw président moom dégg naa ko de. depuis avant muy nekk président sama waaye la. loolu moom yàlla moo ko def ah, te aussi xamante nañ boo dara amut. Mm. ba dara am mais yàlla def nag lu ñu waxe buur aayu dag yi ñu ay mm. loolu lépp nag muy joué si biir mm. mais li nekk si kanam daal rawul bot man moom yàkkamti wu mu fenn benn côté yàkkamti wu ma lu yàlla munti dogal sama sama loxo incha allah rabbi dina jaar sama loxo ay waay avant muy nekk njiit avant muy nekk njiit loolu moom yàlla def na ko euh, te aussi euh, lu jarul wax daal lu bari jarul expliquer fii nii incha allah rabi. <laughs> am na solo bu baax a baax Thierno Hamidou Dioni Dioni moom lañu àndaloon tey ci kër Mbayang macha allah ma delloosi ko waat nag parce que li ko waral mooy mm, waxoon na ne eh, mi ngi Daara Jolof ku ko soxla na ko fekk Daara Jolof waaye nag eh, ay kilifa nekk ci ginnaawam askan wi itam demandé ko ko. ba ci man mii ba tax mu ñëw samp fii nga xamante ni mooy euh, Ouest Foire ci boori marché Mame Diarra boo fa taxawee rek boo wootee ci numéro yooyu suuf écran bi yépp tam am na WhatsApp yéen ñi nekk bitim réew su ko defee dañ leen jës si lan ngay mbokk yi. waaw maa ngi sant ñëpp te gërëm ñëpp surtout nag euh, soxna Mbayam. Mm-hmm. maa lay maa lay sant maa lay gërëm nit ku baax nit ku yaatu yàlla na yàlla ñaanal fan yu gudd a xéewal yu bari. amiin maa Ah, waaw ak sa àndandoo ak seen groupe yi yëpp maa ngi leen ñaanal kenn ku ne ah, fan yu gudd ak xéewal yu bari daal ak yàlla may ko li nga xam ne poche bu mm. bari xaalis moom incha allah rabbi suuf si weer xoor bi incha allah waaw maa leen sant maa leen gërëm incha allah jërëjëf jërëjëf koy sant bu baax a baax di ko gërëm nee naa xaw ma kañ ngay dégg olof waaye nag man moom rek euh, duma ko ko ci benn yoon tant waxul olof yu leer nañ donc numéro yaa ngi noonu mu ngi ci suufu écran bi Thierno Hamidou Dioni Dioni ni ma leen ko waxee moom la àndaloon ci émission bi di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak sant itam équipe technique bi ma àndal tey ci njiital Dóor waar nga xamante ni macha allah tabarkàlla image yu nice lay def euh, ci euh, lépp lu mu mënti doon ñu ngi koy ñaanal jàmm ñaanal ko ki nga xamante ni mooy suñu directeur topp ak soxnaam ak mboolem personnel bi nga xamante ni ñu ngi ci Sunugal 24 kon jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf